Abdoul Malick Bousso ñu ngi lay nuyu. maa lay fay euh, Elisabeth. nga bokk ci forum civil tey ñuy waxtaanee ci euh, accord de pêche euh, diggante Sénégal ak Union européenne donte ne nañu Sénégal signé gu ko waaye yeesalaat nañ ko mu mel ni cinquante mille tonnes. ci suñuy jën dinañ ko napp yóbbu ko bitim réew ci cinq milliards tey ji nan nga jàngatee boobule accord xam nga accord bi mel nii eh, doy na waar hmm. mais lu nag gën a doy waar mooy yorin bi ñu yore géej gi hmm. ak meññeef yi ci nekk maanaam eh, xam nga xam nga eh, balaa ñuy wax accord bi rek moom war nañu interroger war nañu saytu lu tax gone yi di jël looco yi ba seen bakkan di rot ci biir géej hmm. lu tax gone yi di génn Sénégal di dugg ci désert bi di dem bi bay des ci yoon wa loolu yëpp lu ko indi ñàkk pexe amatuñu avenir bu leer mhm. te avenir nag boo koy tabax da koy tabax ci ay ressources parce que ressource mooy indi koom koom mooy tabax euh, euh, euh, réew te kuy tabax réew ab doom bi réew bi la te gone ndaw yi ñoo ci gën a mën a wara a béy seen waar mhm. te loolu lépp lu ko indi mooy que yaakaar nañ ci géej six cent nee nañu six cent à à un million d' emplois dépendent des ressources euh, yi nga xamante ci napp gi la la la wékku mm-hmm. ay liggéeykat ñuy yëngu ci li nga xamante ne mooy indi koom ci réew mi te loolu yëpp ci napp gi lay jógee ñii di dem géej di ko indi li ñu indi ñi koy transformé ñi koy transformé ak ñi koy jaay loolu yëpp boo ko defee ci seize millions yi peut million ak lu topp loo xamante ne gi li li yëngu ci géej gi moo leen moo moo leen moo moo seen teraanga ci la ci la aju bu demee nag ba ñooñu mënatuñu am li leen doy mm-hmm. ba ñu mun ci suturlu réew mi mënatul am li koy eh, jën yi nga xamante ne moo baax li ñuy wax équilibre alimentaire mm-hmm. ak suffisance alimentaire day na naxasaay te en plus xale yi duñu amati benn perspective lu lu wuti euh, wuti ko bitim réew ak lu muy indi mm-hmm. gis nga nag kon gaa gaa euh, euh, accord de pêche ak union européenne yorinu géej gi yorinu pêche bi ak ressources halieutiques mm-hmm. moo posé problème loolu moo tax forum civil fan yi passé rek woote na journaliste yëpp mën leen kaay leen ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy fexe ba ni ñu yoree géej gi mhm. sell mucc ay mooy gouvernance vertueuse et transparente des ressources halieutiques. am na nag benn instrument boo xamante ne euh, anglais yaa ngi koy FIT. Fisheries Transparency Initiative. Mhm. loolu dafa tënk ay jéego ay taxawaay ay procédure yoo xamante ne buñ ko defee dinañ xam. sa géej ngeen ñoo ciy napp yan gaal la yan xeetu napp la ñuy napp mhm. lan lay jural réew mi lan lan lan lañ indi ci jën yan façon jën lay indi euh, ban jeexatal la amal réew mi loolu yëpp ay information dañuy am ay registre yoo xamante ne looy yëngu rek dana ko danañ ko ci mentionné te day ay registre public lay doon boobaa dinañ xam dinañ uh-huh. xam kan mooy nekk suñ géej lan moo la ci indi lan nga ciy def ak lan la ñu jural Mhm. suba tuuma yooyu yëpp nga xamante ne jaar na fi li entre entre GAIPES ak ministère bi yooyu mun na ñàkk fekkee fiti bi installé nañ ko. Mhm. président de la république nag ne woon na bi mu demee visite à à Nouakchott que bëgg na réew mi dugg ci processus boobu. mais mhm. boobu ba léegi 2016 ba léegi Sénégal deful benn jéego pour leeral mbiru géej gi ak li ci yëngu ñu ne nag jot na ko ñu ñëpp ñu taxaw tem. ne géej gi suñu géej la réforme bi nee na euh, doomi réew mi peuple bi ñoo moom ressource naturelle. Mhm. laaj na nag ñu taxaw tem pour gouvernance ressource bi. leer ñëpp ñëpp mun ci teg mhm. waaw ci euh, boobule protocole nee nañ tey dara nekk fi mooy pillage de euh, tey ci diiru juróomi at encore ñu fas yéene di napp ay tonnes yu bëri yóbbu ko bitim réew mbaa suñu géej gi dara dina ci desandi. mais xam nga ñi seen xel màcc ci loolu muy CROC. Mhm. jumtukaay la boo xam ne gouvernement du Sénégal moo fi teg ay chercheur lañu ñoom ñooy xool saytu li nekk ci géej gi. Mhm. ça s'appelle centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye lu géej ak lu mu ëmb yëpp ñoom ñu koy saytu. muy napp ga ak leneen ak lu ak xeetu dundin yu ak nekkin yu nekk ci biir géej. Mhm. nee nañu napp bi fu mu tolloo ci xeetu napp yu bëri Sénégal dafa jéggi fu mu waroon yem ci prélèvement yu muy def ci ressources yi mais lu tax ñun du def ni Mauritaniens yi dañuy yaxaanal li ñu yore mhm. dañuy dugg ci processus fiti dañu xam maîtriser seen gouvernance pes maîtriser seen géej def seen cartographie mais ñun loolu des na recherche bi dafa dafa sooxe parce que moyens yi ci war demu ci gouvernance bi dafa sooxe surveillance pêche bi dafa sooxe mhm. loolu yëpp dafa sooxe laaj nañu noddanti politique u pêche réew mi te loolu nag lu koy indi mooy il faut que ñu wuti jeegaani ay mécanisme ak procédure yu bees yu yees te loolu lay fitti di indi loolu moo tax ñu organiser atelier bi pour ñun ñëpp ñu àndandoo xaxar nekkinu pêche bi ak ressource halieutique pour que gouvernement bi ak acteurs yi jublu ci li nga xamante ne ay pexe géej gi amalal askan wi njëriñ parce que géej gi yàlla mu ngi ko jagleel askanu Sénégal. jëm ci njëriñ googu ndax pêche artisanale boo moyul fekk euh, jamono dina dina dee. ah bu deewul dee euh, pêche artisanale bi sodd na ndagam boo doon jël sa looco di dugg ci géej gi di napp di indi ko di ko jox mareyeur wala di ko jox transformateur mu dem ba foog lim bi nit ñi di lekk jën wala di lekk lekk yabo yi wala wala leneen. Hmm. mënatul am ba léegi sa liggéey mooy eh, yëpp ay gone yëpp ay ndaw lu Sénégal di di di affronter géej pour ñu dem wuti li ñu teddee ak li ñu teralee sen seen seen njaboot ak seen ay waajur. Hmm. bitim réew ba ñu leen di reporter wala ñuy dee ci yoon wi loolu wane ne pêche artisanale bi weesu na daanaka mu ngi mu ngi sukkuraat mm-hmm. te jot na jot na nag ñu jóg taxaw taxaw parce que lii bu ko deful Sénégal amatul avenir parce que gone yuy dem di dee ci géej moom mooy avenir réew mun amatuñu réew xale yi amatuñu perspective jot na nag ñun ñëpp ñu taxaw seet taxaw seetlu googu sax ñenn ñaa ngi wax wut ay pexe wut ay pexe ñenn ñaa ngi wax ay assises ñenn ñi wax yeneen ak yeneen mais tey ndax gis ngeen si ñi ñuy euh, jiite benn volonté bi nga xam ne taxaw nañ tem ngir defaraat euh, napp gi maanaam jafe-jafe yi am ci géej gi mais mbir mi dootul mbiru rek euh, gouvernement bi ak nguur gi ak ak yi wala industriels yi mhm. c'est question nationale nee naa la ca njëlbeen ressources yi constitution bi dafa ne askan weeko ko moom kii napp ak ki ñu nappal ñoo yëm ci ressource bi. Mhm. donc mbir mi mbiru Sénégal la du ñu seetaan ñu yàq napp gi. taxawaay bi dafa la war yow Elisabeth journaliste bi man acteur société civile bi ak ki nga xamante citoyen bu nekk am na sañ-sañ ne bëgg naa xam sa géej gi ak li ma yàlla jagleel ci biir géej gi. Mhm. war a nekk sama njëriñ ak sama njëriñ askan. naka lañ ko yoree ak naka la demee jot na nag taxaw ci. d'accord ci transparence googu le sax yaa ngi koy wax tout ci atelier bi nga xam ne euh, forum civil amaloon na ko amoon na tamit euh, euh, ci jamono gi ñu wees bu yàggul coow lu bari am diggante ñoom acteur u pêche bi ñu lajte ci forum civil mun nañu mu ngi ci. sëgg gën cee gëstu ñu ne dafa am ci suñuy euh, ndox maanaam suñuy waax cinquante navires yu fi nekk ndax loolu dëgg la. xam nga xam nga géej gi ñi ci napp ñu ci bëri dañu euh, bitim réew lañ jóge même industriel yi avant mm-hmm. ay bateau union européenne lañ doon lañ lañ doon nappee ñu ay gars yi yooyu mm-hmm. euh, léegi nee nañu ay chinois a ay russe ñëw nañu ñun amuñu leer lu ñu leer leer leer leer mooy que chercher yi nee nañu li ñu jël ci ressource bi géej gi attanatu ko. Mhm. war nañ taxaw seetlu léegi nag bu ñu bëggee am lu ñu leer dañ ne ministre ak acteurs yi mbir mi yëpp nañ ko teg ci table luy àll ala ala alakalaj lan la. nu mu tontu. licence yi naka lañ koy joxe arrêté yi. naka lañ ko defaree. Mm-hmm. dañ tepp sur la table xool lan moo ci sooke ñu defaraat ko noddanti ko d' abord lu njëkk mm-hmm. ne. dañu ay information pour xam kan mooy tu tuddee boppam sénégalais man na fi c'est-à-dire nañ def audit pavillon national bi bato ne man sénégalais laa rek nañu xool naka nga taxawe kan moo nekk sa ginnaaw loolu indi ci géej gi euh, naka nga nekke pavillon Sénégal mm-hmm. accord yi ñu yan type d'accord la yan yan xeetu napp la la la concerné yi ñu defoon comme surveillance pêche observateur yi ñu embarqué te loolu yëpp amatu daanaka euh, bateau bu génn lu la neex ngay def ci biir géej parce que amuñu nu ñu la surveiller na mhm. euh, euh, à part nga dajeeg marine nationale ñu xool li ngay def jaaduwul ñu verbaliser la mais avant dafa amoon ay observateur embarqué loolu yëpp amatul jot na nag ñu toog càmbaraat politique pêche acteurs yëpp loolu lañ leen wax forum civil nag ci lool lay def parce que ñun yoruñu solution yi. Mm-hmm. mais dañu dem xool fan la problème yi ne tëggalal nag woo acteurs yëpp ne leen kaay lañ càmbar problème yaa ngi nii nañu wut solution. Mm-hmm. jot na nag ñu wut solution. parce que bu ñu wutul mm-hmm. non seulement autosuffisance alimentaire euh, sénégalais yi euh, naam. li ngi gën a lekk ci protéine animale ci jën gi ci géej gi mm-hmm. jën yi la donc équilibre alimentaire wu Sénégal yi dafa mën a menacé ci kaw jafe activité économique yi day menacé mm-hmm. euh, avenir jeunesse bi dafa menacé jot na nag ñu toog xool lan mooy dellu si jàmm ci filière yooyu ak ak ak ak secteur économique yooyu loolu mooy taxawaay forum civil ci kaw jafe-jafe yooyu la ndax euh, yaakaar ngeen ne Sénégal euh, dina xaatim bi lépp accord yu ñu yeesal. balaa ñuy xaatim ay accords yu bees dañu war a def évaluation ñun newuñu Sénégal warul accord ak ay nit dañu ne dañu ne fi ñu toll. Mhm. dañu fi ñu bi dafa doy waar mbir mi kenn xamul nu mu doon lan lañ ci am ak lan lañ ci ñàkk. Mhm. taxaw na nag balaa ñuy def lenn. nañu toog dëglal xool li ñu attan fekke euh, dix mil la ñale soxla géej gi bu ñu jëlee ñoom cinq mille lañ ci mën a am par par mois ñu yemal leen ci cinq mille yi mhm. fekkee sept mille cinq cent ñu xam te tamit géej gi booy dem di jël si ressource euh, ressource bi nga xamante ne yàlla dafa jagle mhm. am na foo ma tane dooma sama njaboot bu ñëwee ci yow nga delloo leen ci man tig géej gi li ma war nga ñëw di jël liñu ñu doon dundee di ko yóbbu sax ci yow loolu xel mënu ko nangu. Mm-hmm. nañ toog waxtaan ku nekk am ci sawar sawar la. Mm-hmm. mënuñu jël li ñu moom yóbbu ko ñun bu ñu demee ci ñoom fi ñu nee pour am ci as lu tuuti seen koom pour indi ko tuddee ko ñun ak suñu njaboot ñu ne non seen kone yi nañ dellu ah mu ngi noonu on peut des accords avec l'Europe et leur, et, et leur, on leur envoie ci mbëkk sont allés parce qu'ils ne peuvent pas disposer de la ressource. ci mbëkk moomu justement euh, tey jii euh, nga foog ne euh, pataaralu état ci mbir mi lan la. loolu loolu nag soxna Elisabeth. ni ngeen ñu laajee suñu xalaat ci mbir mi nu muy demee. noo ko jàngatee nu ngeen ko jàngatee ngeen ko war a ngeen war xam nga mënuñu wax seen gént. waaw noonu ngeen jàngatee ñoom ñëpp xam nañ la ñu mi ah. ñoom lañu dénk réew mi mm-hmm. ñoom ñoo war a dimbale xale yi ak ndaw yi ni ñu tabaxee seen avenir bu fekkee xale yaa ngi jël ay looco di dem ba seen bakkan di rot ci géej ñoom ñu amul ñu benn tontu xale yi li ñuy dem du du ñàkk ñàkk xëy moo leen moo leen yóbbu mais kooku ñun amuñu ci ñu xalaat Sénégalais yi ñoo leen war a interpeller yéen journalistes yéen a war laaj ne mais yéen yéen ban façon ban façon réew la ñun ba li nga xamante nit ñi yaa ngi dee ci géej bi ke kooku yëngalul kenn kenn du ci wax en plus en plus fort ñoom ñu ñuy dénk mi di ñu wutal ay lay yoo xamante du lay mhm. mais dafa jot nag yéen <laughs> yéen ngeen interpellé ko ñëpp interpellé la. kon daal euh, taskatu xibaar man a aw ma dara lu ma ci xalaat non ñun la interpellé lii moom mooy kenn mënul weddi ne xale yaa ngi jël loo ci mhm. ndagam ndagam lu fa yegg ñi ñi fa ñi ñi dee ci géej bi dee nañ ci géej bi ñi fa des ñu ngi leen di rapatrier hmm. yóbbu leen Mauritanie loolu nga bu fekkee am nga sañ sañ jaakaarloog Sénégalais yi ne leen non xale yi lu leen yóbbu ñoom te ak indiscipline la du ñàkk xëy Sénégal amul problème xëy xëy ndaw fekkee loolu Sénégalais yi mën nañ comprendre loolu mais man man aw ma ci xalaat aw ma ci dara lu ma wax. <laughs> Abdou Malick Bousso ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.